Sénégal mbokki àddina benn ci bés yi gën a marqué ci mois de février bi mbokk yi ci wàllu lamb tey man event su moo ko woot kookal la ñu ne Ahmed Diop xale bi dëkk Géejawaay ci biir banlieue bi ne damay jàppale samay frère samay mbokk li nga xamante ni nii ci lañu bëgg ci la ñuy yëngu daay man event su ñëw ci lamb te ci loo xamante ni nii jafe na ndaw def ko ci mbokk yi mu dikkaat ci saison bii ne dama leen di indil xale yi nga xamante ñooy espoir yi xale yi amateur i yàqam ti daal di am ñu ne le 19 février fan ci arène nationale Ameth Diop mbokk yi borom Diamond Events def na lu rëy daf cee sargal Gana Kebe kooka la ñu ne opérateur économique bu mag bi nekk askan wi mbokk yi Kebe la ni sargal bisu le 19 février ci arène nationale wax naa leen lamb mooy kuréel gi nga xamante ni ku deful dara doo fa dégg dara ba tax na mbokk yi bisu le 19 combinaison bi ci sama ndijaay Abdoulaye Ndiaye def mësta am xam moom ak Cheikh Sitta puy deux dina fa laale ak buur géwél mbokk yi njël fa bu Cheikh frontière mbokk yi ñooy laale jaas bu ndoo yi dina fa laale ak njaag magicien kiriku xam ngeen gaynde daawi ñoo fay daje mbokk yi Ada Fass numéro 2 moom ak Zof 2 Boy Dioum dina fa laale ak Malick Niang numéro 2 mbokk yi Papa Ndiaga moom ak Thiatou Malo mbokk yi dinañ fa bëree combat spécial ba Hercule moo koy bëree ak Ibo bu kër Mbaye Fall tey Vito ak Garo Gare mbokk yi seen sargale ko Gana Kebe day mën si tëgg bisu xale yi la képp ku ko daan mbokk lamb doog la fàtte kii la 19 lamb dana yëngu arène nationale dina mel na mu daan mel Abdou Lahat Ndiaye sama ndijaay xanaa yëgoo ni combinaison boo deful laj baaxul Ndiaye